kidogo. mbokk yi di waawoon asalaamaaleykum léegi balaa ñuy door waxtaan bi dama bëgg micro bi génneel ma ko est xam ngeen di tax may nañ ko dindi ndax Macky Sall gannaaw mu tappalee tappaleem ànd ceeg administration ak justice ba suñu liste titulaire nationale ñu écarté ko ci loo xam ne du yoon kon tey bu ma RTS lan lay jëriñ ndax duñ ko mës a génne amul jëriñ rawatina nag RTS mooy télé boo xam ne suñu impôt moo koy financé ñun ñu jël ay milliards di ko jox at bu ne waaye élection ba élection la RTS di jàllale opposition est-ce jox jaar na bu ne mu jël Macky Sall suba ak bëccëg te ci texte réew mi dañu ne dañu war a def des émissions plurielles l'opposition dafa war a à la RTS mu teg fa un directeur général boo xam ne politicien APR la bu élection jotee rek ñu gaawantu ñëw nañu dañuy ouvrir moo tax ma ne leen dindil leen ma ko sànnil ma ko fële ndax soxlawul ko mbokk yi maa ngi leen nuyu di nuyu ñëwaat ci waawan yëpp